gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuuba ñaanal Sëriñ Muntaxa bi ci yàlla fi yàlla jiw ñaanal sama sëriñ sëriñ si Mbacke Abdou Lahad bi yàlla jiw lépp dañu doon def rek benn social ci commune bi ak commission sociale dafa yàlla dafa dogal bi koor gi bi ñu watee suñu suñu parawaasu ci benn montant boo pour social yàlla bi koor nag moo tax ñuy jënd trente tonnes de riz muy six cent sac ak euh, dix tonnes de sucre euh, ñu war ko jox way ñi nga xam ne soxla woon nañ ko wëññi di doole yi ñuy jàppale leen trente euh, tonnes de yi di six cent sac ñu def ko par vingt cinq vingt cinq kilos mu nekk ay mille deux cent sac cinq cent sacs yi lañ def mu nekk mille sac ñu jël suukar bi def ko ay cinq kilos cinq kilos gannaaw léegi lu mat ñu boo woote woon nag ci commune bi barki dem ak démb ak tey di ko jox way néew di dox yi nga xam ne aaju woon ko ci weeru mag bi waaw bi ñu ko defee jëndoon nañ ko muy walooru treize millions cent vingt mille francs treize cent cinquante mille cent cinquante mille la valeur bi ñu jox tegoon ko jënd ak ay loxo yu wóor yoo xam ne ko xam monsieur le maire Ndiambe Ndiaye ak Serigne Khadim Mbacke Aliou ak ku mel Mara Mbacke daa tey yàlla dafa dogal mu absenté am ay nit ci dox ko muy ñi nga xam ne yaakaar nañ ne lu tegu ci seen loxo am nañ doy goo xam nam a demee danañu demee ndax ñun ay dañ ñoo dañoo askan wi teg ñu ci kanam askan wi kon lépp lu ñuy def war nañ ko teg ci yoon fexe ba bu jógee mu àgg fi nga xam ne fi la war a def loolu tax ñu tànnoon ñooñu boole leen ak commission sociale ngir que ñu mën koo joxe joxe boo xam ne ñu tegu ci yoon lay lay doon bañ wut xej ji ak seen yàlla dogal na nag ñu ubbi tàmbali woon ko ci commune bi joxe nañ ko ba jeex na tey. te nag ni ko sëñ Xaadim waxee ci déclaration bi moom li xam ne moo ko seere woon. Hmm. moo tax rek ma di sànni ay kàddu. liggéeykatu maire bi nag liggéeykatu maire bi nag ñoom est ñoom nañ ci. waaw xam nga liggéeykatu maire yi sama personnel la. Hmm. defe li ñuy wax li mu seq ñoom du weeru koor rek. Hmm. defe naa ne ci premier maire bi ni ko Sénégal di feetoo ak ni ko commune Touba feetoo ku nekk gis na ko ñoom ñoo waxal seen bopp ci presse bi. mais lan la ceeq ak commune bi ak man mi nga xam ne yàlla nattoon na ma ma nekk ci seen kanam ci bopp commune bi ci jamono nan laa nekk ak ñoom loolu wax nañ ko ci préliminaire bi ku nekk léegi na ko ku nekk gis naa ñi ko Sénégal yi feetoo ak doléance yi Sénégal yi bi ëpp ci collectivités locales yi recevoir ak man li ma recevoir ci ñoom ak cant ak ngërëm laa recevoir ci ñoom maanaam ñuy feddali seen collègue ne rus nañoo wax sax ab doléance di ko di ko nit ñi di ko déglu ñu di ko bind di ma ko jox ndax ñu ma nekk ñoom loolu ñoo ko wax ma di leen féliciter rek ci euh, seen liggéey bu rafet di xam ne euh, weeru ko boolewuma ak ñoom premier may boolewuma ak ñun yàlla mooy boole de sëriñ Abdoulaye waxal boole moom yàlla koy def àndante nag ay jikkoo koy def donc biiram li nga ànd ak ñoom fas naa yi lu ma leen tànnee danaa leen ci dimbali waaye lu ñu leen lu ma leen war a defloo danaa leen ko defloo hmm. ndax li ma leen di defloo yëfi askan wi la du sama yëpp kon képp koo ci xam ne nii tegu nga ci yoon di def li ngay def ni ko war a defee incha allah wax lépp luy say droit da nga ci jot. ak yu mel nii nag est ce que yooyu wéyal la ci askan wi surtout que ñu dëkk ci gox goxaani même bu weeru koor bu jàllee. waaw xam nga ñun ci loolu lañ dëkk. social ci la ñu dëkk. du du weer koor ba gi yàlla sax ci suñu xëyee ñu ngi ciy dox liñ man ñu ngi gis nga biir sa gisaa bu ñu ko watee gis nga président commission sociale bu ñëw Touba ni mu doy bët bi yàlla sàkk nga gis ay saa bu ñu dajalee une semaine un quinze jours un mois dañuy dajale cas yooyu traité ko. donc yóbbul ko li ñu leen mën a jàppale ñu defar leen ay engagement yóbbu ko Tonsor ñu dem jël ko set mois donc ci loolu lañ dëkk weer wi nag day weer bu tedd di weeru màgg baaxoo jullit bu nekk wala mbooloom jullit mu ne war nañ cee daje saafante ci kenn ku ci nekk war cee dimbale loo man ndax lii sunu borom tabaaraka wa taala waxe rek eh, ci ci benn addis buy wax am na benn waaye buñ naan way torox nga way torox nga way torox nga buñ ne way torox nga du ñu ne ñu defee ne nit ku lan mooy torox nga mu ne ñett la ñu firee torox nga boobu benn bi mooy ko dund ak sa wàjju ba mu faatu te defoo ci loolu yóbbu àjjana kooku da torox beneen bi ñu ne jaru ramadan weeru koor wu tero ba dee te profité ci jëf ci loolu yóbbu àjjana loolu toroxtaane la hmm. ko loolu euh, maanaam ñu ko ni ñu ko tënke bugguma guddal hmm. yooyu moo tax ñu bu weer wi ñëwee rafet na ñu def benn acte boo xam ne acte simple la boo xam ne ñun ñëpp dañ koy def euh, waaye ci loolu lañ dëkk suñu xel ñu ngi ci guddi ak bëccëg suñu yoon jërëjëf